di nu ñaan li nga visualizing itu kata Rasulullah disampaikan bahwa canggung belum sampai sekolah

loolu ay coono la waaye bëggul baax rek la kon noo ngi leen ci jéglu day naan yàlla sa borom mu doon leen leen kattan ba ñu yàgg koo man te lépp lu ci waaye defee mu doon ab denc ëllëg Allah abdan ci Allah boo ko jekk man sas nañ ma ndax lépp lu ma ne mbooloo lépp ànd jaay mbooloo man jàpp na ma nekk lu baax jàpp na ma nekk lu baax te damay làmb lu noonu kon loolu ci man di aw sasit ci man yaakaar yi nga xam ne yaakaar yi nga xam ne am nañ ko yaakaar yooyu yëpp yàlla na ko suñu borom dëggal liggéey bi wax dëgg mënees naa wax ne jag na waaye yéen a xamul jag gannaaw yàlla muy mag muy gone yi lii ngeen fi gis lépp ak seen alal yi ñuy dajale. bu dee gone yéen seen ñaari dërëm ak seen fukki dërëm la ñuy dajale. ba dem ci lii ñu ci def lépp. bu dee mag ngeen yi. bàyyi la am nii mat na ci seer. kenn ku ne. kenn ku ne. lim ci man mi ngi koy yëkkati. lim ci man mi ngi koy yëkkati di ko jox. bu ko defee bu bis bi accès. bu ko defee bu bis bi accès.

ñu mungkin menunggu perbudakan